doon ñoo xam ne euh, ñu am solo lañu ci xeex bi ñu xeex mooy presse ak journaliste yi ngeen doon ñu ngi leen di nuyu waaye di leen beral cant di nuyu askanu Sénégal wi ñu bokk waaye di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoom lañu àndal parents di nuyu yëpp ak kilifa yi toog di leen nuyu bu baax a baax a baax di leen ziar di wax rek lu ñu fi dajale muy manifestation boo xam ne waajal nañ ko incha allah la samedi bii di ñëw ñu ko papis waxee ñun dañu déposé samedi bi passé bañ demee ba guddi lañ ñu wone suñu manifestation bi dañ koo teree nee na ndax BRT ba ñuy defar ca place de la nation kon BRT bi moom mujj naa gën a cher askan lu tax ñu di ko def ah, ba tey baax na léegi tey ah def nañu demande terrain Sacré-Cœur ba nga xam ne amul BRT amul circulation amul dara di xamal autorité yi ne duñ ñu ngalaab de duñ ñu def liñ ñu def apare na duñ wax dañuy wax de kon nag ñu ngi ñaan préfet way jur la papa la nijaay la borom kër la nañu am respect ci citoyen yi ñu doon yi ñu jalgati seeni xaq ñu taxaw bëgg koo wax muy loo xamante ne constitution moo ko consacré di wax nag ak suñu askan bi nga xam ne amuñu benn benn benn ngant ci fii ñu toog jàkkarloo ak ñoom suñu doom yi tax ñuy xeex ñoom ñoo taxoon ñuy xeex askan bi moo taxoon ñuy xeex seen réew moo taxoon ñuy xeex moment boo xam ne xeex jafe na lool ñenn ñi tànn jóg exilé wu ñenn ñi dee ci géej gi ba jeex ñenn ñi ñu rey leen terewul ñu taxaw rek xam ne réew mi dafa massa gore ci boppam ay gor yu kenn mësta noo dafa dëkk kon nag bu lii amee ñu ngi xamal suñu askan ne Afrique du Sud day ku nekk dégg na seen histoire bu fekkonte ne woon ne duñu askan wuy bañ kon ba tey ji ñu ngi ci njaam te seen gore gi ñu gore tey ña ko doon xeex tey jii sax fekkewuñ ko kon nañu xam ne bëgg jàmm daal bu mujjee tax luñ la teg nga tegoo ko ni ma koy faral di waxee rek yaa ngi ci jàmm mujj bi te yëgoo ko bëgg jàmm bu taxee luñ la teg nga tegoo ko dangay ngay mujj yaa ngi ci jàmm te yëgoo ko kon ñu ngi wax ak suñu askan ne ñun day aji ñu ñu tooñ lañ ñu war a taxaw nag ñaxtu ko te di leen ci woo soxna yi yaay yi bu leen defee ne ci réew mi lii ñun rek la mën a dal de mën naa raam dugg kër gu ne kon na ñëpp teel a jóg ndax injustice amulu ràññee xam ne ka koy def dafa gëlëm kon ñëpp a war a jóg tey nag dama dama dama bëgg a wax ak soxna Marème Faye Sall soxna Macky Sall soxna Marème famille détenu politique yi ñooy wax ak yow mag ñi dañu wax ne kilifa yi <clears throat> buñ dajee ci penc mi dañoo wax ne ku gën a baax soxna rek yow yaa gën a rafet xel ci penc mi loolu la kilifa yi wax ñu ne ñi yor réew mi yor pénc mi doon kilifa yi buñ dajee ci pénc mi di nas ak di nocc ñu ne ka fa gën a baax jabar kooku mu fee gën a rafet xale moo waraloon mag ñi boo mu soon a wax ñu ne la xaaral ma waxtaan ak sama njegenaay njegenaay loolu soxna su baax la maram suñu doom yi dañoo nekk chambre 3 di taxaw di nelaw di def yarama neen duñu mën a sangu di amee picc di amee góom di sëqat am tuberculose xoole leen Amadou xooleel xale yi Amadou neel sa borom kër suñu borom boole na doom aadama yi nu ne ci dencoo bokk deret bokk réew bokk pas-pasu diina bokk lu ne waaye ndeyi boole yi mooy yaay ak doom Marème doom sibit la te xam nga ko wax ko sa jëkkër digal ko yërmande dafa mujj président dafa nekk lu abstrait ndax sore askan wi nañu jege ñoo ko faloon lu ngeen doon ñoo leen ko def soxna Aïssata Tall Sall làkk nga français làkk nga anglais xam nga loo waxul sénégalais nga làkkul xam nga ñu xam nañ la osé nga lu ne osel taxawal sa nawle jigéen yi sa moroomi ndey yi ñun kat bu jigéen faloo dañuy defe ne dana taxawe xàqi jigéen ñi ak seen yërmande ndaa naan nga ko na nga bàcc fa ay loxo waaye xam nga ñun lu ñu ñor dëgg saraxuwuñu yalwaanuñu xàq la laaj justice la ñuy réclamer ci suñuy doom osé ko osé loolu am na it benn soxna boo xam ne woon nañ ko sans limite mu doon soxna su ñàkk dal dama bañ a wax ñàkk classe di wax fu ne mu sànni fay loxoom di rege jee ko xullee ko naan xale yi bu ñu dem manifestation ndax ña leen di manifester loo seeni jabar demul seeni doom demul ñun suñu doom manifester lu ñu kenn ndax seeni jur ay gell war la ñuy leen jur fañ leen war a jure suñu doom seen réew ak seen askan la ñu manifester kooku ma di ko wax ne man soxna Ndeye Diop de li ma dese cig defaru li ma dese ci defaru li ci sama kanam ci defaru dafa tax ma jàpp ne déglu moo ma war waaye du dégle ma di ko laaj moom nag di wax ñiy wax ne suñu réew suñu suufu réew ñàkku ay doomam la sol soxla soxlawul dereti ay doomam ki ko wax day réclamé woo ne ku jàng diine la ma di ko delloo ci li suñu boroom wax allahu laa ay maa bi xaw xawmin xatta ay maa bi anfusihim suñu boroom nee na seen xaq ak seeni yelleef seen souveraineté moom seen réew moom seen bopp da ngeen koy xeex ma fekk leen ci waaye duma leen ko defal may wax jëmm jooju ne ko na xam ne sahabatu rasul seen deret moo naan nandal suufus Makka moo tax lislaam taxaw bu ñu defee ne xale yi ci ay jaayil lañ génne bu ñu defee ne xale yi ci ay famille analphabète yu tekkiwul dara lañ génne ay xale yu baax ngeen jàpp ay gor ay gellwar ngeen jàpp ñu di leen ko xamal kon fi baat bu fi ñëw rek mën naa dellu si xam ngeen lu ñu leen di wax bàyyi leen sunuy doom salaamaaleykum bàyyi leen suñu doom salaamaaleykum on donne la parole à Père Dramé qui va faire la version française